boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo sëriñ bu baax di wax asalaamaaleykum di nuyu mbooloo mi fi teew yépp di ko tàmbalee ci sama kilifay bopp yi fi teew sëriñ bu Mbàkke moom Seex Ahmadul Fadal ñu ngi ko doon séenu waaye dafa wax ni am na ngant ñu nit ñu dogal ko ngant ndax mooy borom liggéey bi am na ci yitte lool dina ci farlu lool am na ci yenn lool bu lu mel nii amee te téewut rekk ngant la ci moom waaye dogal nañ ko nag ngant bu baax waaye ñu ko fi teewal nag yéene nañ ko teewaay bi lool tey delloo nañu ko daraja yëppit nag tàmbalee ko ci sama kilifa gi di sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Abibu maanaam di sama nijaay di maam ci ñun ci wet maa ngi koy nuyu bu baax maa ngi nuyu soxna Bintu soxna Ja di nuyu soxna Mbenn ak mbooleem ñi àndal muy sama kilifa yooyu ak sama rakk yii ma àndal sëriñ Mamor ak si na léegi ak Cheikh Ahmadul Bachir ak si na léegi seeg sëriñ Muntaxa taxaam sëriñ Cheikh Abdou ak si na léegi ak sëriñ Mourtala moom sëriñ du fi jóge léegi ñun ñépp ñu àndandoon nag ñëw teew ci bis bi ngir jëmmi soxna jabaara mi nga xam ni moom moo ko woote tey bëgg a jébbali ab liggéeyam bi mu séq ak waatubaa ca kanam yàlla defal ko tawfiq nag mu ñu ànd ca lool mu am yitte lool am pas-pas lool ndax liggéey bi yàgg na ci lool mi ngi ciy def lépp lu man ren nag yàlla dogal mu woo ñu ci cëral ñu ci ñu nit ñu wuy si ko sunu yéene sunu xol ak sunu xalaat yépp ànd kook moom noo ngi nuyu daal ñépp ñoo ngi feeñal sunu mbégte ndax liggéey bii day liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la slogan bi màndarga mi nu amee ñoom dañ koy fal di wax lool ci yoonu murit moo mooy di laaj lu nu attan te di ko def fu nu xam loolu nag yéen a ngi ñi ngi ci looloo tax ñépp sawar ci bu yàlla dogalee mbooloo mu bari ànd ci itam kenn ku nekk xam na fi nu féete sëriñ bi ci wàllu liggéey bi ndax xam na ni Tuubaa warteef yi dafa bari wet goo dem rek boo xool rek warteef ya bari na fa lool ba tax na kenn mënu koo màng sëriñ bi ci boppam lu mu man lu mu am lu mu xam mi ngi ko ciy def waaye teew dëkk bi dafa lëng lépp rek wet goo dem rek mu des lu dul jeex waaye bi tubaa ca kanam amee nag wax dëgg yàlla wet giñ ci taxawee kenn ku ne xam na ni wet gu am solo la fu mu jaar rek bu jàllee dana am jeexit jeexit ju wóor joo xam ni defe naa ne murit bu ne yéene woon na amul man ba mën a def jeexit ju toll noonu kon nag murit bu ci nekk ak foo mën a nekk ci dëkk bi mbaa ci réew mi mbaa sax ci mbitim réew buñ la ci woowee war nga caa mën a wuy ji ndax murit defe naa ne lu mu néew néew xalaat lu mu néew néew yéene dana yéene dëkk bi mel ni dëkk yëpp mbaa mu gën ci dëkk yépp yaakaar naa ne xolub murit boo lamb da ko ca fekk loolu nag doxiinu tubaa ca kanam wii wenn gënu ko cee gaaw wenn gënu cee gaaw loolu kon murit yëpp nanu dolli seen pëstéef dolli seenu laxasaay góor góorlu li ñuy laaj jëfewut bariwut te kenn ku nekk mën na ko na ñëpp ñëw rek kenn ku nekk lam ci man lam ca mën a teg li nii laaj moom waxuñu ko ndax bariwul xanaa kay kenn ku ci nekk boo lambee sa poos sa xol la nga njëkk a daj ci lu ëpp lool nga def ko ci loolu moo war loolu moo jaadu ndax loolu moo war a nekk pëseef ñëpp ndax dëkk bi kat dëkkub Serigne Touba la fi njëkk a liggéey. moo fi njëkk a liggéey. bis bi mu fi njëkkee ñëw. bis bi mu fi njëkkee ñëw. dem ca ron béb ga. dem ca ron béb ga. ba mu demee fekk bëgg faa toog. demee bëgg faa toog. bëgg faa deeyaleeg boromam. fekk barab ba xaw a ñaxe. fekk barab ba xaw ñaxe. la ko leeral ba mën faa toog. la ko leeral ba loxoy boppam la ko defee. ko fa njëkk a ko fa njëkk a fekk. ka ko fa njëkk fekk. wax nañ ni sëriñ Mandumbe ndumbe la. waaye ba mu dikkee. daf ko wan loxo yi. mu deretal mu deretal. mu ne ko àlli lu mu doon mbàkke. mu ne ko xanaa doon jéem a setal barab bi rek. doon ko jéem a yaatal rek. sëñ Mandumbe dafa daanu. ndax xolam fees dell. waaye ba mu jógee dafa dem falax falaxi rek di buddi di di këdd di yëkkati ba barab ba leer la ndiir sa fa leer ndigg safa leer moo ko leeral kon barab bi sëriñ tubaab moo fi njëkk liggéey kon murit liggéey fi wërta jafe benn murit Touba ca kanam nag li yitteem. tur wi yóbbaale na ko. tur wi yóbbaale na ko. mooy na Touba dox. jëm ca kanam rek. lu mu weesu. bu ko weesoo. jàll ca leneen. fii nag ku ne xam na ni lépp war na. fi. ndox maa ngi nii. ndox jafe lool jafe lool. ndoxum taw maa ngi nii. ndoxum taw téye ñëpp école yaa ngi nii école yaa ngi nii. dispensaire yaa ngi nii dispensaire ngi nii. te loolu lépp. Touba ca kanam mi ngi ci yëngu. kon murit boo xam ne. yéene woon nga ci yooyu dara. nga teg ci sa loxo rek. nga xam ni la nga cay def. xam ni la nga cay def. boo ko xeebee itam. bu ko ñépp defee. bu yàggee mu am njariñ kon bu ci kenn xeeb boppam. nañ ci góor góorgóorlu bu baax ñun ñëpp nag jataay bii nanu soññ ndax liñ fi limkat la ca ëpp jigéen ñoo ko def kon jigéen jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen aw yiw yoon waa ngi noonu fu góor ma sa taxawe laxasaayu di liggéey jigéen ñaa nga ca ginnaaw ba àdduna sosoo ba tey kon yéen itam liggéeyub Touba ca kanam ma ngoog kenn mënu leen ci kenn rawu leen ci kenn ëpplewu leen ci na ngeen góorgóorlu bu baax lu ngeen ci def na ngeen ko xeeb góor ñi nan dellu la dëgëraat laxasaay yi nag yoon wi ji góor ñi kat ñoo war a doon reyteef ndax kon daal li ñuy wax naan nan góorgóorlu nan laxasaayu nag ba jigéen ñi bañ leen a man kat bañ ñoo man sax lay wax ndax loolu moo gën waaye fexe ba la di wax naan bu laax tanewut ci faay na laax ci faay tane laax dara jëru ko góorgóorlu leen bu baax sëriñ bi nag lu ci waay def xam na ko ndax ba bëccëg ma nga ca bu doon dara itam aw sëriñ bi aw ko sax yombul waaye boog lu waaye lu bokk waaye bu boog lu bon bon wolof nee na ndompat sax ci sot la bokk kon góor góorlu leen ñu sotle ko ñu jàppale ko ba dëkk bi la mu ci yéene yàlla def ca la mu ci yéene kët mooy li ci borom yéene woon rek manis fee nekk nekkin wu aw yoon nekkin fi ak jub nekkin wu jub nekkinu xam-xam nekkinu taalibe nekkin woo xam ne boo bëggee jàmm yàlla dana la yomb dana la yomb lool waaye fexe ba bëggee boo bëggee jàmm yàlla da ngay dem feneen mbaa nga gis feneen foo xam ne jàpp nga ni foofu la la gën a yombe loolu dara jarul jamono nag toll na foo xam ne lu waaye am moomal ko sa bopp téew ko sa loxo yaa ngi koy defaral sa bopp loo boo séenoo keneen jóge ci àll ñëw di la ko defaral njuum te rekk la waaye doo ko gis mukk kon nan laxasaayu defaraat dëkk bi góor góorlu ci bu baax jàppale Touba ci kanam mi bu mu dem bu baax. ba lépp loo xam ne ba bu sëñ bi geesoo ne leen dem leen def ko. ñu man koo def. na mu gëne na mu gën a baaxe na mu gën a yiwe na mu gën a rafete bu nu ko defee rek yàlla dana ñu dimbali woote boobu nag bitim réew ak li ñuy wax diaspora ak biir réew mi ak biir dëkk bi ñoo ci yem képp ndax murit boo làmb ab xolam sëñ tubaar rek nga cee fekk ak fu mën a nekk nag yaakaar yaakaari murit moom li sëñ Abdou Lahad waxoon rek mën naa dale fu ne di bërëm waaye boo see ci tàgg sëñ bi fa la mën a yem kon murit boo làmb ab xolam fekk ci sëriñ Tuubaa kon nan góorgóorlu bu baax ci liggéeyam bi bu baax Serigne Touba rek laa yaakaar laa yaakaar. moom laa yaakaar tey moom laa yaakaar ëllëg. ca lu ñu woote ngir Serigne bi. doo ci def benn góor góorlu loolu dara jëru ko. góor góorlu nag dara jën jiituwu ci. Serigne Abdoul ñoo ngi lay nuyu. di la yóbbante ci Serigne bi. Serigne Abibou. ni ko noo ngi ci ginnaawam. fas ko yéenee jàppale. ci liggéey bii liggéeyam bi nu mu gën a baaxe nu mu gën a rafete noo ngi koy sant bu baax lool ak mbooleem ñi mu ko bokkal mbooleem ñi mu àndal liggéey Touba ci kanam bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen bége bu baax fas yéene laxasaayu ànd kook yéen ànd moom jàppale ko ci nda ba mu gën a baaxe wax dëgg yàlla li mu fi def kat jafe na keroog ba muy xalaat naan murit bu ne ñaari téeméer bu matee ñaari million ngi murit muy mat ñaari milliard dëgg dëgg mbett am na ci liggéey bi baax na lool dox na lool waaye defe woon nan ni ca at mu njëkk ma rek la ñuy amee vingt-quatre milliards yi waaye yàlla dogalagu ko nag waaye nag murid yi yaakaar naa ne bu jógee ci lii xoolaat ko bu baax seetluwaat ko bu baax Touba ca kanam yaakaar naa ne dana laxasaayu waat ba yaakaar naa lim ci bëgg dana ko am ndax saa su saa su sëriñ bi geesoo gis sëñ abi bu ci kanamam xool ko ci wetam xelam day dal lool lépp lu muy xalaat ci jafe-jafe dëkk bi ba yàlla dogal xelam dem ci moom xolam danaan fereex kon nag loolu war nañ koo xam ñu ñëpp xëy na am na ñoo xam ne xamewuñ ko noonu waaye war nañ koo xam nag fi mu féete sëriñ bi daal war nañ koo xam bu baax am na nee ko xam nañu ko ñun ñëpp ñoo ngi ci ginnaawam. fas yéene koo jàppale bu baax a baax jërë ngeen jëf soxna ja ñu ngi lay sant bu baax di gërëm bu baax wax dëgg yaa mbooloo mi la wuy si jàmbaar nga bu baax woote say bokk wuy si la lu lu jafe la boo koy seetlu ci say bokk boo ko siqut ak say bokk doo ko mën a am waaye nag yow yàlla defal na la loolu defal na la wor ma defal la yar defal lay teggin defal lay teggin koo woo ci say bokk rek du ma wax sax say bokk waaye jàmbur ñi koo muy si la ko yàlla na nga ko yàgg def mboolem ñi nga xam ni dañuy woote lu mel nii jëme ko ci tubaab ci kanam ñoom itam seenu boote yàlla mel nii mbaa mu ko foofu njariñ rekk la sëriñ Touba moom lu ci def lu mu tuuti tuuti ak lu mu bari bari yaa ko moom doomu aadama nag buy wut lu baax alal la wala jàmm lu mu ciy wut waru caa wut lu tuuti lu bari la ca war a wut kon nag nanu la bu baax sàkk ko wut ko ñaan ko yàlla mu defal nu ko ni nu ko bëggee Cheikh Mamadou Mountakha yàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyi bàyyi lool mu wér lool mébét mii mu mébét moo xam daara ji la moo xam ndox la ci dëkk bi moo xam njariñ lu mën a doon ci dëkk bi ak ngërëmal Sëriñ Tuubaa li muy sàkk guddi ak bëccëg maa ngi sàkk ñun ñëpp ñu maase ñaanal ko yàlla defal ko ko yàlla nag ko yàlla defal ngërëmal Sëriñ Tuubaa yàlla na suñu borom doon dogal mu àggale liggéey mu àggale yeneen yëpp ci barkeb sëñ Tuubaa. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. mbokki jullit yi yëpp mbokki taalibe yi ngi leen di yi kilifa Tuubaa ci kanam sëriñ Abibu ñu sax Mamadou ak ci tuum mboolem waa ci kanam ñi teew ak ñi teewut. ba mu nuyoo boobu di ko teg ci loxol sëriñ maam Cheikh moom Cheikh Mamadou Mountakha bi teew mu jot leen ko ci kilifa bu tedd boobu Cheikh Mamadou Mountakha bi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba waaye di doom liggéey bi di Touba kanam waaye di ko ci am yéene di ko ci jàpp ba fu kanam ak si tey gannaaw yàlla am tàmbali ko ci ak jamonoy Cheikh Sidi Mokhtar ba buñ ca def bañ dem ca mu tàbbi ca jaayante ci joxe boppam ca saa su joxe juróom-ñeent ñu ñu yéene te mënut noonu la ko defee woon bis bu mu ciy dugg te booba Cheikh Sidi Moukhtar nii mu cay ko toog toog jotaayu sëriñ bi mu wax ne day yokk la mu ca daa def juróom-ñeent laa joxel ak bopp mu fukk léeg-léeg nag day joxel juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ak boppam ñuy téeméer ba ren ji def na ko léegi ñu sànq la ma sëñ Moustapha Dieng mi nga xam ne mooy firndeel loola li ma wax ne da ko suñ bi la ne ko won nañ ma indi kii yi bu ma xooloo ba ñu yóbbul ne nañ ko teg ci loxo si ñëwee bu am naan bu ñëw mu jox ma ko léegi nii kon sëñ bi na mu ko daan defee matale ko nii kon loolu si lépp lay tegtal rek ak ittee ak xew ak bëggam Touba Ca kon ci moom la ñuy ak cant akum ñaan suñu doom ni ko suñu maam jàmm waxee léegi jullit ñëpp yaakaar naa ne danañ ko na tey bii suñu tubaab yi ba bëgg lu baax dañu ñaan suñu mën taxaa yàlla fi ndax sababu lislaam la sababu yoon bi la njëriñu diine jëpp la yàlla na ko suñu doom bàyyi lu yàgg-yàgg te doole ko kattan ko bàyyi ko saboom ba li mu yéene naa ko bëgg ko defal suñu tubaab lépp mu def ko te ñaan ko moom dugal ko suñu tubaab sant na mboolem ñu wis ci jataay bi di sant nga xam ne moo sabab jataay bi soxna Fatou Dia moom sax moom mu doxal mi nga xam ne moo woote jataay bii ci tur Touba Ca Kanam te daa ko def waaye ànd ko kilifa suñu xaalim ngi fi ay bokkam ñu ngi ngi fa am nuyoo di ko teg seen loxo ñu jot lu ñu ko ñu nuyu itam sëriñ maam ma wax sëriñ bés yu ñi nga ne ñëw nañ léegi teew ak sëriñ Muntaxa ak sëriñ Cheikh Absa ak seen yi ñu fekk yëpp muy soxna yi nga xam ne ay mag yi soxna jalañ wala ñu ay waxtam ñu bokkam ñoom sëriñ sëriñ bés yu ñu ñoo teew ñoom ñëpp waaye ñu ñuy soxna yi ko baax kanam ci ñiitu soxna duñ ko baax sëriñ Nabi moom nga xam ne mbooleem soxna yi ko baax kanam yëpp mooy seen jëw yi mooy seen njiit te mi ngi ci teew ànd soxna benn mbàkk yi soxna fëkk ak soxna yi ko seqal yëpp nag ñoom ñii leen di nuyu baax di leen ko sébaj waaye xam naa kàddu yi moom suñ naan ca soññee na soññee boo xam ne jëtul la wax soññi xanaa cant rek lañ ci wax ci turu ci ñëw yi ak turu Touba Ca Kanam ñu suñ mbay tam waxee waa Touba Ca Kanam yu bari ñu ngi fi teew suñ daaw ña xam ne moo jiite massification mi ngi fi teew suñu la bi nga xam ne moo rottoon ba yëkkati ko baykat bi soññi ci kanam ci ginnaaw yóbbu solo waaye di nuyu suñu doom yi yow suñu Cheikh Mbacke nga xam ne moo ubbi woon jotaay bi ci ay soññee ak jàng fàttali njàngale sëriñ bi di lu am solo lool loo xam ne moo tax teg na ko jotaay moom ñu ngi koy sant bu baax di wax kon suñu maam Diallo ci turu sëriñ Habib ñu ngi gannaaw bu ñu santee sëriñ Mamadou Mountakha ñaanal ko yéen ñi jaboot boppam it ñu ngi leen sant ci biir waaye itam ndax moo ni ko ko waxee ne naaw si yéen na ko yéen ci gannaaw yéen a ci gannaaw aussi ne ko ci suñu bu xam ne ne yéen a ngi ci ci gis di lu ko wax ci lu koy yokk lu koy yaatal lu koy baaxal lu koy jëme kanam te yàlla rek tax ak sëñ Tuubaa ak bëgg bu jëm kanam lépp lu ñuy gis itam lu ko nar si mun lu ko jaaxal ci dëkk bi ak lu mu jël loolu dana fay taw feex mooy làmp yëral nga xam ne mi ngi nii ñu def ko ci dëkk bi yàlla dafa dogal jamono yi nga xam ne ci jàkk ji la suba léeg-léeg moo fa suba ko soxlaa teel faa ñëw su jullee ba noppi duggee ci biir am daan defee ci bu njëkk dama na waxal moom li nga bëgg a ci yaatu am bis ma jullee ji ba nuyoo ba nit ñu nuyoo ba wàññi ko ma nuyoo lekk laa ko jox loxo ma ndax ah, yow de bëggoon naa la yàmm bi ba ko te loolu moom maa ko gisal saa boobu maa génn fii guddi ak sama oto dox dëkk bi lu yàgg gis dëkk bépp la ma bi ma ko gisee nag sama xel ci yéen rek la daal dem Touba Ca Kanam ci bëgg ngeen daal ci taxaw ba dëkk bi leer daal di see wax lu daway doxe ma ne ko ak ah, loolu nag kon suñu taw feexal ndax nun day dañ doon dàq bëgg sëñ Tuubaa ci bëgg nga sant nu ko loolu lañ la doon kon solo yàlla danaa ko daal di wax yaakaar naa bi may génne sëñ boobu sept mooy nag bu ma ci wala waxtu woowee loolu ma woo si yi ko xam naa ko tijjeeku téléphone waaye ma daal di ko yëgal lenn di waa Touba Ca Kanam si bi jot koo teg moom taw feex jooju ak ndigal li moo dem ba làmp yi ñu mel ci dëkk yi mel bari kon loolu mooy firndeel sëñ maam na wax ne sëñ bi wax ko lu ko jaaxal rek bu xelam demee ci Touba Ca Kanam te xelam xolam lay daal di tam li ñu mujj am muy làmp yi nga xam ne moom la ñu bëgg li ñu jógee ñu bëgg a màggal nga xam ne boobu masque yi ñu ak dem ba ak yitte bi ñu ko doon wax waaye ñu ko wax ba àggal rek mu daal ne waaw bëggoon naa leen gis ngir làmp bi diggante que suñu jëriñ waxtaan ba ca hôpital des ba dafa lëndëm te ñu jàmbat ko lool bëggoon ngeen def ay làmp loolu itam ñu daal cay taxaw ci def ko ak yeneen yi bari ci dëkk bi yoo xam ne lu mu ci gis ba bu yàgg université bi rek ñàkk na ndox daa daal di wàtteel ba aussi bi na ko université bi dafa am ndox daa bëgg daal ñu ci taxaw làmp kon loolu lépp ab soññ la ci moom waaye taw feex la ci moom ndax li ñu doon def lépp kat dañuy waaye loo xam ne suñ jël ko ko ni lii laa ko ngeen defal ma ko loolu jël suñ taw feex bi moom bàyyi na xel te yëg na ko te su su soññ waaye alhamdulilah bi alamin soññeen boobu nag yéen ñi di jawwatam soññ ngeen ci ñu nekk tey soxna jam ñi ñu ci def tegtal la ci yaakaar naa sëñ bay doon na ko lim léegi soxna ngi ci te mi ngi woote bis mooy la loolu rek tegtal la nit kon njaboot sëñ Muntaxa ñu ngi ciy jàpp ñu leen seeral nag soxna jam ñii sëñ maam jam yéen ñi ci defaat parce que loolu ak itteel ñu ngi ko waxee rek ci ab yàlla ak tekki ak njàmbaaram wax dëgg yàlla bi da cee dugg parce que mu bëgg waaye sax lépp bu woon ne dinañ mën a dox jéego yi mënul dox waaye ak a suñ dajee ne ay jéego day yokk macha allah kon ñu ngi koy sant leen ko seeral waaw moom man man ak moom mii. dox nañ ci jéego yoo yoo xam a doon. la waroon a doon. ndax dem nañ ba def jalis. ndax dem nañ ba ba ñuy def jalis. amuñu genn ndox bu ñu a defaree jalis. dem na ba hôpital bi ñu doon def jalis amatuñ genn ndox bu ñu mën a defee jalis. woo nañ sous am a am ndox. woo nañ ñu nekk te am ndox. woo nañ te mënuñu am ndox. ñu woo waa am ndox. moom mii laa woo di sëñ Abdou Lahad mu ne man mii la woo di Abdou Lahad fa saasa fa saasa loola mbir moom lijjanti fa saasa mbir moom daal di lijjanti nangami fan nangami fan yoo xam ne Touba fan yoo xam ne Touba kanam ñoo ko fa nar a def boo xam ne Touba kanam ñoo ko fa a def jëlee ko ci forage ba ko ci centre ba jëlee yóbbu ko ci centre ba ña ko yor war koo def xam ne ëpp na. ña ko yor xam a xam ne sàggante gi ëpp na. ñu koo def. moom a doog a lijjanti. kon hmm, ko loolu taxawaayu kon sëñ bi loolu moom kon di su may dàggal kon suñu man ci doon jot loo xam ne moom buñ ndox bu nga xam ne kenn si tamit sax amuñu mu ñu daal ci ay jéego ndox Touba ba bëggul faa def ab coow ko loolu waroon def nag doog bi ñu kon nag alhamdulilah alamin bi nga xamee ne ki ñu koy defal sëñ Touba xam na te yëg na ko te jàpp na ko te waxtu wu nekk xelam di dem ci Touba Ca Kanam waaye alhamdulilah daaneel bi nga xamee ne yéen ñi ak njaboot tamit yëg ngeen ko te jàpp ngeen ko te yeneen nañ ci soññee ci soññee ndax soññee bii nga ko weesu jàpp ne mille mi waroon nañ ko mën a am waaye buñ ko amul ba nëgëni nag war nañoo def suñu jaww la suñu itte ci am ndax jàpp nañ ne buñ ko amoon image yi ñuy seen Cheikh Gueye Cheikh Gueye kii ngay seen ñi may jàkkar woon image bi mooy kee toog ne mooy boobu yàlla

moom làmp yëpp yi da taxaw tax dëkk moo koy taxaw ngeen ñu mànte ko te ñoom ñëpp nag li ci gën a yéeme ñoom dañ ko jaayee bi nga loo xamante ne mën naa wax trois ko waawu di leen ko fay yëpp dañ koy jaayee bi ñu dem sëñ Tuubaa kon nag wax dëgg yàlla liggéey la boo am yaakaar liggéey la bu am solo liggéey la boo xam ne liggéey bu mat a soññi la waaye nag li nga ci wax léegi mel ne woote bi soxna yi ñoo ko gën a dégg góor ndax kat mbooleem li li ñu fi doon lim ne dañ koy woote ci weeru décembre su xasee tàmbali fa booba sant nga xam ne mooy suñu seen mooy suñu gën a doon ak euh, ba ba boobu ay soxna moom la soxna yi di yor si kon li nga wax moom awi jaaru xawaa moo ne xalal nisaa yi waaye nag Touba Ca Kanam moom ak ANISA xaw a mën a ja si yu doon daanaka moom mën na ko xaw a noonu kon wax dëgg yàlla soxna yi moom ñoo man ñoo man fop fop soo Touba Ca Kanam si jataay bi wane na ko seen jëf wane na ko liñ ciy te te yëpp la daanaka noonu lay kon wax dëgg yàlla soxna amee nañ leen ak sant boo xam ne leen sant ba sant tàmbalee ba fa mu yem ñaan suñu doom coono bi ciy sonn ñu jëm sëñ Tuubaa yàlla na leen ko nangu dafay leen kon soxna Dia ñu ngi lay bu baax ci turu sëriñ Aliou amoon na ñu fa ñëw tamit ma téléphone ba ma jox ko sëñ maam Diaw ñu wax ak moom nee na looloo ko tee ne amoon waaye daa dem ba it waaj ay gan kilifa ñëw ko mën amatul muy loolu moo tax mën nga waaye nag kon ñu teewal ko ak mboolem waa Touba ci kanam ñu teew ñëpp ko di la bu baax di la ñaanal ci jëf ji yàlla na ngay tajee gërëmu loolu ci ngeen fay it su dee ne yàlla na yokk ak mbooleem ñi ne ci ak mbooleem ñi ko àndal ñëpp ak fu mën a nekk rek yàlla na yàlla boole ne lu ñu mas a def tuwaay kanam rek dana danañ ko it ngir fay bu kale ñoom kon nag cant moom mënta wees san san nañ di ko seeral si maam Diallo seeral si bopp yi kon li ci des si maam Diallo soññee na du jëm gudd ak jataay bi ñun ñëpp nañ yeesal suñu pas-pas yeesal suñu itte yeesal suñu taxawaay ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi te xam ne kat liggéey la bu yaakaar liggéey la boo xam ne résultat bi day day sax ñu gis ko ñun ñëpp ñu ngi ci mën a jariñ lamp yaa ngi ñu ngi ñuy doon ndox maa ngi ñu tëli yi bu ñu ko defee ñoo ci jàpp dëkk bi ñu si maam jalloo am na jafe-jafe ndox te ndox moom ñu ne sëñ Muntaxa ëpp ci kenn yaakaar Tuubaa bi wax naa ma ko ay yoon bu bu yàggul rek wax naa ma ko waxaat na ko kon nañ bàyyi xel ci ne buñ ko songagul yàgg-yàgg nañ bàyyi xel ni ginnaaw bëgg sëñ bi te mi ngi koy wax jëmee ci ñun duñ a mucc ndax bi ñu bi a màggal rek daa wax waaw maa wax dem leen boole naa leen si yéen boole leen na ngeen taxaw ànd ak ñoom ba ndox mi mën a taxaw suba tuwaay ci kanam génn na lu mat cent nangam million def ko ci bi ñu bëgg a màggal alhamdulilah daa ne am nañ ci taw feex am nañ ci yi ba yoo xam ne dem nañ ci màggal bu weeru màggal da ba yi teew danañ fekk ñu màgg ndox waaye dem nañ ba ci biir màggal am ndox doon nag dem nañ ba ci ndax liñ def ci ay millions fii ba mu bañ àndaloon su fekkoon ne ay sabotage të tëgguwuñ jàpp nañ ne ndox du manqué waaye nag fii dafa da ngay liggéey ñeneen di yàq bu fukki di gas fukki di suul aw kàmb lu mën a am looloo tax waaye fi jàpp nañ ne sabotage moom moo ci dugg waaye kon ndox mi du manqué ndax cent et quelques millions def nañ ko te sabotage boobu itam tax ñu xam ne am na bi màggal gi jàllee ubbi nañ lu mat fanweeri wan yoo xam ne dañu ko tëjoon loo xam ne dañu wut ak ak équipe pëlume yi ñu dem di ubbi wan yi ubbi nañ ci dëkk bi lu mat fanweeri wan yoo xam ne dañ koo tëjoon ñooy ñiy tëj wan yi nag xawma lu tax ñu koy tëj xawma dox ñu ko def waaye ko nit ñi sëñ tubaa lañ koy def lañ koy def te sëñ tubaa dana ko jëflanteeg ñoom moo xam tey la moo xam ëllëg la waaye ku ko ci bàyyiwut di gàllankoor taalibe yi sëñ tubaa yi ci lépp ci dëkk sëñ tubaa bii da nga dajee tubaa bis loolu moom ku koy def ku ne sëñ tubaa la ko def defu ko taalibe yi xawma nag lu ñu ci jublu waaye tëj gi tëj wan moom am na ndax leer nañ ñi moom yoo xam ne mën nañu image yaa ngi fañ ko tijjee ba xam ne wan ñi dañ ko tëj fu li dem tijji te it wóor nañu ne ñun liggéey bi ñu ci liggéey ak suivi bi ñu ci doon def bu fekkonte ne lu mel noonu amu ci ndox mi du manqué ni manqué waaye teewul loolu lépp nag ginnaaw moom wa maskan yi salli minal fu jaaw fu jaaw yooyu moom sëñ bi tuddaale woon na leen ci ndox ma wam noonu xalaa bi maayeen jaaw doog a ñëw yooyu moom sëñ Tuubaa da leen falang bañ dem ci àll ba ndox mi ñëw baawaan ko dootu manqué loolu moom sëñ Tuubaa moom lépp lu mu bind daa wax ne dama koo ñaan suñu borom ba may ma ko ma doog ko bind bind ga teg bi na laaj bi waaye am naa ko ba noppi ndax rus na maa laaj yàlla lu ma dul jot kon ñaan gu nangu la ba noppi yàlla nañ bokk ci ña koy nangul ñoo ñu koy gàllankoor itam yàlla buñ bokk yàlla buñ si kenn bokk kon nañ gën a def suñu itte gën a def suñu farlu gën a def suñu lépp li sëñ maam Thierno wax ñu sëñ bi njëkk a liggéeyal boppam ci dëkk bi kon ñun ñu am taw feexe nag man cee def dara te li koy def yomb lool muy ay ñaata lu ñuy laaj nañ ko def suñu itte def ko suñu jom def ko suñu bësseef ba at mu di jot luñ ci dajale 24 milliards bay am lu mu ëpp ci yàlla na ko yàlla defal ci barke Sëñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp ñi fi teew di gërëm ñëpp di ñaan di gën a ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu doom yàggal ko fi te may toogee di sant nag suñu xaarit Diop mi nga xam ne itam ci ëttum bii la ñuy defee lii boom mooy boom kër yow soxna jabaar nañ ko waxee sama sama doom yaay sang moom sang jóge nu daanaka ci waaye rek daaw sax xawoon naa ko sa wax ba wax ji xam naa ñu jàpp ko sax wax ji kii fekk dama ko doon tooñ rek ci ak dëggoom ak ñàkk caaxaanam te it loolu lañ xam ci moo wax dëgg yàlla xaarit moom kenn xamu ko ci caaxaan ku sant Diop nag moom sa daa sant Diop waaye wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku bëgg lu baax la te lii ba sàmm wax bu fekkoon te ne jàppaliwu soxna ja ci lii du ci mën a am lii mu ci am bu ci amutoon ndigal li du ci mën a fay du ci mën a kon ndigal la mu ko jox rek ba mu nang cee def lii loolu rek ñu ngi ko ciy sant bu baax di sant di sant mbooleem njaboot bi ko seqal kër gi di ñaan yàlla yàlla nañ teew nag ñu déwén te suñu borom defal ak yokk te suñ tolaa nangu lu jëf ji yàggal Cheikh Mouhamadou Mountakha damañ toog yo waaleykum salaam boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo